سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bokki jullit yi gannaaw bi sant yàlla jullit yonent sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte ak kontaante ñëw ci jataay bu sell bu laab nga xam ne li tax ñu lu dul fasjudu lillahi wa'budu moo tax ñu daje fi ci turu kuréel bi nga xam ne mooy al jamiya al islamiya di xidma tasawuf bi nga xam ne تضم جميع الطرق الصوفية في Sénégal ñu taxawaloon ko depuis 2015 ci ndigalu sunu kilifa yu tedd yu baax yi jiitu yàlla na yàlla dolli yërmande mën naa ci tudd koo xam ne jataay bi moo ko yilifoon te moo ko yilif ba léegi ndax ñoom seen jëf du deñ du dagg nahnu awliyaukum fil hayat dunya wa fil axira alhaji maam bu Mouhamad Kounta yàlla ko yàlla doon leer mu daal moom ca Ndiassa ci kanam sëñ Abdourahmane Kounta mii di di nuyu sëñ bu Mouhamad Khalifa Kounta mii teg sama wet ak mboolem ahlu Kounta yi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi mu lay fekk fii ma wax rek délégation bi ñu ma àndal suñu di ko tuddoon na ko léegi waaye sama coordonnateur mi ngi def ngir tafal ayis ba léegi ñoo fi toog yëngatu ngir dajale ndawi tasawuf bi ngir mën a sàmm tasawuf bi mag ñi baax ñu bàyyi waaye ñuy si Abdourahmane Kounta mii nga xam ne gisa jàll di jàng nekk université Anta Diop ñu fekk leen ba ne leen yéen kër fii temple de savoir la yéen fii la tasawuf néewee doole ndax am na ñu fa nekk ñoo xam ne lu mag ñi defar buñ duggee foofu ñu yàqaat ñu fekk leen fa ne leen jug leen dëgg la daayira am na fi burit am na fi xaarit am na tijaan kenn ku yaa ngi xëj sa daayira waaye loolu taxul tasaw dem da ngay fees leen ne ànd ñu ci kuréel gii nga xam ne aljamee islamique xidma tasaw ngir mën a faire face faire face ak ñooñu xam ne dañuy taxaw di gàllankoor liggéeyu man alhamdulilah rabbil alamin mu nekk ndaw jàmbaar loo xam ne ba ñu leen fekkee fexe nañ bu fëgg seen bopp ñu jub moom si rek bu kenn ba nekk di ci liggéey ak ña nga xam ñoo fa nekk moo mbàkke la moo xam sii la ak ñu mënti doon kon délégation bi tënk ñooñu lañ jot a àndal bu doon xataayu jataay bi ñu war a dem ba jagsaaw dañuy toog fii ànd ak yéen ba timis jot ñu doon continuer waaye ñëpp suñu am di waxee noonu la demee du jëm jagsaaw sax waaye kenn ba te si Babacar Seck suñ ma dëkk Seck bokk kuréel gi dafay def tamit ak gàmm incha allah ñu war fàttoon bi ah lu gàtt la ñuy wax rek ndax fii toog jëmm yi xam nañ ñu xam nañ leen di nuyu baax sama xarit sëñ bi ma toog muy toog sama wet ndeysaan moom aw tur sax la wutal nee ko <laughs> yàlla na dafa turi mujaahid la ma tuddee la may wooye waaye loolu lépp nit jub ma rek tasiyam yonent sallallahu alayhi wasallam da ko def dañ jékki-jékki gis benn saxaaba rek mu tuddee ko tur Seydina Bakar tudd na ko tur Seydina Omar ko tur na ko tur Abdou Abou Moussa al na ko maanaam ngir alxuraan bi neex mu ne kii de jox nañ ko mazami daaw de am na ko ñu ko jox loolu lépp ngir tas yi leen waaye targib ñi nga xam ne dañoo toog pour ñu gën a góorgóorlu ci biir kon alhamdulilah rabbil alamin di nuyu imaam ko baax a baax a baax ak imaam euh, nga xam ne jógee na fi ma toog nii sëñ Bouna ma nga sant gërëm ndax waa ndànk muy suñu am di kunta ak sëñ Baba kunta depuis ñu taxawal AIS ñi ngi ci di euh, li nga xam ne jataay bi lépp day gan keroog bi ñu demee. Cheikh Ndiassane si bu Mouhamad Xalifa Koundoñ ànd xam ne kii day moo représenté xadar kunt yi bëpp mën ne wér ne lépp day benn ndax ko boole muy Touba muy Tiwaawan muy Pout bi te mag ñi rafetaloon ne kon ñun bu dese seen ginnaaw te ëllëg ñuy nekk mag war nañoo gaaw nag jug wala moo taar kon alhamdulilah ñu teel a taxaw waxuma la euh, maanaam wane tasawuf wala défendre ko waaye mbokkoo gi xamante ci biir rek ak demalante gi rek loolu daa doy sëkk sëñ bi ñëwee ci kanam toog mu ne seen ànd bi day nga difróo dara dàq na seen i noonu dàq na seen i noonu kon kuréel gaa ngi noonu muy AIS di ko tax a yëkkati dara mbokk yi lu sàmm ak turaas ak suuf yi patrimoine suuf yi bi mag ñi baax ñu bàyyi suuf yi boobu tey ni koy misaale ci bu gën a leer mooy tasawuf ak garab la garab koo xam ne dafa am ay bànqaas bànqaas benn bànqaas daa sëtëxlu benn bànqaas daa sëtëxlu Touba benn bànqaas sëtëxlu Tiwaawan benn bànqaas sëtëxlu Ndiassane benn ci kër yi diine yëpp foo dem nag fekk benn bànqaas boo xam ne ca garab ga wax tasawuf foofu la jóge bu fekkee ne bànqaas bu jógee Touba wala Tiwaawan boo toog boo toppee benn dàtt garab moo leen boole benn dàtt garab moo leen boole dàttu garab googu warees naa taxaw nag jéem koo aar dàttu garab googu warees naa taxaw jéem koo aar ndax dañoo gis ne dàttu garab googu kat daa am yor seen i semis si yor seen i jumtukaay bu garab gii kat dàtt bi dañ koy daaneel dañ te wax naa ne léegi garab yooyu yëpp. maanaam bànqaas bu ci nekk ci daatu garab boobu la jàpp kon nag bu fekkee dañoo gis ñoo xam ne dañoo mel ne dama ko faral toojee sama mbokki law bi jël seeni simi ñëw ne daatu garab dañ koy daaneel yaakaar naa ku toog ci benn bànqaas ci beneen bànqaas ba te bu bi nga daatu garab ba nga ne sama yóon nekku ci bu daatu ba daanu ñun ñëpp àndoo daal bu daatu ba daanu ñëpp àndoo wax naa ko ba nee fu ñuy saytaane mën a jaar mënut am li tas moom islam mënut a tas Sénégal wallahi taalibe yi mën xër di waxante waaye bu dellu si waat ci ñu fekk sawaab yi di leen boole yéen tëkk takk boole ndax ku lii sëñ sëñ Ndiassane la bind lii sëñ Tuubaa la bind li si daxaj maa si nga bind amul benn wuute ci boole ci suude pour julli ñu am nekk benn doo ci gis kenn ci téere muy móolu morom do am babatul abdina au contraire dañuy boole taalibe boole julli ñi takk leen ci say moo tax ñu Sénégal fu ñuy seytaan yi a jaar xanaa xëy na xot diku faa nga laxta xuudu xidrakum mën nañ ko def ndax xeeb xal mu tax mu rak ko mooy seen i mag borom xam-xam kànga bay delluwaat boo demee seen téere ñooy bindi tàqale julli wallaahi boo demee mag ñi ñuy delluwaat tey képp ku dellu ci Ibnu Taymiya wala ngay dellu ci Muhammad ibn Abdul Wahhab da ngay fekk ci biirin ay fatawaa mu naan la ahlu shirk ahlu bidaa boo toppee ahlu shirk ahlu bidaa xam mooy ñeen mooy ñun ñii naan naan barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jeex ñun ñi nga xam dañuy def tabarruk ñun ñi nga xam dañuy def tawassul ñun lañ tuddee ahlu shirk ahlu bidaa kon moo tax ñoom tamit mënuñu am jàmm li tax mënuñu am jàmm fa ngay delloo nga xam ne yow boo jaaxlee boo jaaxlee da ngay delluwaat ci yàlla fa in ta'fu shay'an faruddu ilallaahi wa rasuulihi wala raddu ila rasuuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allaziina yastanbituunahu minhum di ko alxuraan waxee boo ba jaaxle dañuy war delluwaat yàlla delluwaat alxuraan karim des fois sax yàlla neen nañ dellu ci xam yi léegi yow bu fekkee ne boo dee ba jaaxle boo delluwaat sa borom xam nga ngay fekk sa borom xam ne la kat kanaan tawassul kay def tawassul mooy def ñaan ba àggal ne bi jaay bàkki bi yontu sulaaf la wala kay kay def def tabarruk kooku boo delluwaat sa borom xam ba danaan la kooku ahlu si ahlu bidaa la yow bu la yàlla dimbalu mënoo bokk say julli baabadoon ak te seen fataawaay boo demee doon boo ñëwee bindul seen دانا كل ويرد يورد مردا لحضرة الله ولا جهدا سواء انت بعد الجيلان او انت بعد احمد تجان او سواء مختار انت كل قطع على سواء بولي بك سيد المختار كنتي دانا تيت لم لا يوم بان لا يوم سيد الحاج مالك سيدنا الأطر كله إلى الرحمن مسلم مسلم قد يجان كون يوم فني شيطان ما جان مرتا بابل الأدب ndax suñuy mag dañoo bind boole ni tënk ñu am nekk benn mais loolu nag ñi jiitu di ay kenn ku ne nekk sa keppaar maam di war ne sama maam nangam la da nga dem ba ko gërëm loo te bu gërëmee bu gisee da koy jàpp am noonu da koy jàpp noonu te lu yàlla teel sax kon nag moo tax ñu ñu taxaw ci jamono boo xam dafa laaj ndax jamono réseaux sociaux lañ toll jamono mondialisation lañ toll jamono boo xam ne sa sa sa sa sa doom ji ngay yàq di ko yëpp biir di ko wax sa di ko wax lépp moom day toog fi ngay toog ubbi portable li nga wax ci maamam am na keneen ku ko weddi ci maamam fekk yaa ngi wax sa di ko sumat waaye day portable am ku ne ko ah yow de sa maam dara mbokkaal indi ko ay alxuraan indi ko hadis diwri ko interprétation bu ko neex yow wax ba àggal mu wedd la bari ñu fi weddi seen i bari ñu fi weddi seen i maam ñu fi weddi seen i maam ñu fi weddi seen i rek lan moo ko waral mooy lii mooy internet kon course la bu gaaw boo xam ne jamono ji boo ko maîtrise wul sa doom dana génn li moo tax kon ñu jub comme suñu jamono lañ jamono mondialisation ñu ne taxaw nag dugg ci réseaux sociaux yi dugg ci internet bi lépp loo xam ne ñuy fàkkastal mag ñi wala bëgg fee jëlee seen jàngale ña koy def ñu tax faire face ak ñoom wuutu suñu mag ñu baax ñëpp alhamdulilah plan bi depuis 2015 ak yàlla dimbali ñu ci ba ñooñu ko doon def delluwaat na ginnaaw du ma wax ne bàyyi nañ waaye dellu na ginnaaw ful ba ngeen daan def nga xam ne bu gàmm masaan jot wala wala màggal jot dañ ko daan complot seen biir fu waaye seen jàkk mën a nekk dañuy waxtaan cirque wala bi daal

waaye alhamdulilah plan bi bokkum ñëpp comprendre ñu nekk ànd di liggéey kon daal ñu ngi ñaan yàlla suñu subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla gën a tàppe xol yi yàlla yàlla gën a suude maanaam maanaam ñooñu jullit l'islam Sénégal la waaye yàlla yàlla jàppale ba suñu xalifa yii nga xam ne ñoo fi nekk yàlla suma fomata may leen ak wér bañ gën a continuer di leen liggéey ci tasaw di leen liggéey ba yàlla suñu boppam defal ñu bëgg lépp ah dafa xat moo tax ñu Euh, ñu ngi waajal deuxième a AIS daaw lañ defoon colloque bi ca 3 mars ca King Fahd Palace démb rek RTS doon na ko teg sëñ bu Mouhamadou Khalif mu kuréel bi toog sama wet daaw def participation am solo démb la ko RTS doon teg koo na ko jàpp ko ngir boole ñëpp daaw ñu King Fahd Palace ñeneen jii ñëpp a ñëwoon ren ñu koy waajalaat mu war a nekk incha allah rabbi le 21 février jeudi jeudi bii ñëw bu dellusee ñu war koo def ci CICES incha allah loolu nag dafa am lu ci am ndax dañoo am ñaar suñ ñaar yi suñu kilifa bokk waaye ñaar ñi pincul kunt yi lañ bokk ñu leen rendre hommage muy maam xalifa bu Mouhamed nga xam ne képp ku dem tàpp YouTube bi def visite la à Ndiassane fekk wax ju wax ju wax ñu wax doon doon ak solo ju mu doon solo da nga koy ndax bi ñëwee xam am na défi bu am am na menace am keroog dañoo soññu ñaax ñu ñaanal ci ñaan boobu mooy toog ba kon bu ñu demee ba gisatuñ ko bu ñu dee def kolof dana ko rendre hommage mu nekk carte invitation yi waaye di rendre hommage tamit si Ahmad Basir Kounda mi nga xam ne moom tam sunu bàyyi la woon sunu ndijaay la woon sunu xarit la woon daan ñaaxal daan ñu soññi daan daan ñu encouragé da ci desaan keroog dégg rek moom lañ fekk mu toog ci kii bi nii mu toog ci encouragé di jàpp sama loxo di ko bës donc moom kon jugee na fi dinañ ko rendre hommage ak Sidy Lamine Niass mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko ak soxna Bali Mbacke ma ma may mën a bu Serigne Touba donc ñeenti ñooñu dañuy rendu incha allah bis ba xam ne duñ toog rek jëmm yu mel noonu liñ def ci réew mi ak liñ def ci réew mi ah, te ñu bëgg seen liggéey ñu gaaw fàtte ko noonu suulee ko noonu ñu ne déedéet ñun ay lépp ñu def suñu kilifa tedd yu mag yooyu nga xam ne ci lañ nekk li ñu gunge incha allah dañ rendre hommage boo waat seen i jëf boo waat seen i seen lépp ba àdduna bi xam ne ñii moo ñi xam ñoom la am ci ñoom la ñàkk kon mbokk yi bis baa ngi noonu jeudi le 21 février doon ñu ko yëgal waa Mbour yëpp di ko yóbbu ak Mbour yëpp seen bis la ñoo ko bokk ñoo ko bokk ñoo ko moom yàlla na yàlla yóbbu ñu dugg ci nawet noonu génn alhamdulilah rabbil alamin di jégalu ci kàddu yi guddee liñ euh, liñ bëggoon dara lu dul ñu indi islam astan bu ma toog illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh